ci li ñu jeexale noonu li ñu doon fi ñu yemoon mooy di wax ne rek humanité ci boppam moom la ñu interpellé ci responsabilité rawatina nag ñi nga xamante ni jamono bu nekk ñoom la ñuy xaar ngir seeni problème ñu mën ci am solution mooy gëstukat yi mooy jàngkat yi ak jàngalekat yi ci ñiy góorgóorlu ci wàllu àdduna ak ñi nga xamante ni ni ma ko waxee woon léegi bu wàllu madda jee jàllee ñi nga xamante ni tam ñooy ittewoo xel ak xol ak ruux ñoom tamit jamono bu nekk seen interpellation day gën a mag ndax ñoom sax lu ci bëri dañ leen di tooñ ndax dañuy nekk jàpp seen jàmbur nekk ci seen barab di góor góorlu yeneen influence extérieure fekk leen fa di leen sonal sonal yu méttee métti léegi moo moo taxoon ma doon tudd laboratoire de recherche ak ay chercheurs yoo xamante ni tamit dañuy taxaw ngir jamono bu nekk di gëstu li nga xamante ni mooy xew tey ak di sonal doomu aadama ci mu mën a di fàttaliku jamono bu nekk li ko fi indi bàyyi ko fi ni ko sëriñ Saliou Mbacke doon wax radiyallahu anhu ak li nga xamante ni loolu bokkoon na ci li tax Cheikh Ahmadou Bamba sañc dëkk bii ak yeneen dëkk yi nga xamante ni yëpp moom la sancoon kon laboratoire de recherche lu ama am solo la ñu ci bàyyi xel bu baax tamit lu am solo la di ko formaliser tamit dëppale ko ak àdduna ba nga xamante ni bu yu mel nii amee problématique yu am yu mel nii bu amee sonal nit ñi ñu mën cee góorgóorlu donc doon naa tudd léegi ci inconvénients yi l'éclatement des systèmes de valeur ak de modèles culturels modèle culturel foofu tamit dafa am solo surtout les média sociaux da ngay gis léegi li ñu gën a bañ mooy ñu ne diw de ku baax la diw ku baax la génne ko ci médias sociaux tey yow mi ko génne sax da ngay dem ba ne man est-ce que kii waroon naa ko génne ci médias yi ne waroon ne ku baax la ndax di nga ci fekk ñoo xamante ni tey ab armée la ñuy nekk waaye seen yitte mooy bala ñoo tëdd dinañ dinañ bëgg a influencer nit ñi gëmloo ne leen kii du ku baax ku bon la kon ñoo ngi influencer pour ñu dindi ne kii kat matul référence matul matul matul li nga xamante ni moom la ñu kii leneen li mooy média dafay consacrer ce qu'on appelle le droit à la parole ñu jàpp ne kenn ku nekk rek war ngaa mën a taxaw ci pénc mi yor parole di wax ku ne bëgg am sa média da ngay dañuy egg sax ci ku nekk léegi ba ci sax mm, nga jiite mbooloom àdduna wala nga jiite mbooloom diine dangay jàpp ne da war a am sa média jàpp nga ne daal yow lii ngay def kenn validé wu la ne lu baax la wala lu baax la ci société bi jàpp nga ne yow da war a am sa média war a amit say taskatu xabaar ñu lay jàllaleel say média yenn saa yi nga jël ku sawar lool ci mbooloo ci sa mbooloo ne ko yoreel ma média bi deful formation bi amul éducation bi amul dara ci xam-xam bi nga jël ko jox ko arme bu puissante noonu soo moytuwul bés booy subir les dégâts collatéraux su boobaa doo ko yëg ndax média bu mën di am ci kaw suuf dafa am lu ñuy wax la régulation il faut que mu am régulation su fekkee ne nit ki nag amul taw féexu di bàyyi xel boromam ci liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey jëmale ko ci doomu aadama yi su boobaa foog mu am nag benn instrument boo xam nit ñi ñoo koy wut comme ni ko CNRA nekkee tey ci Sénégal te ñu dem ba sax ci biir journaliste ñu am lu ñu tuddee le tribunal des pairs waaye tamit dañuy gis ne jamono bu nekk day am ce qu'on appelle un vide juridique mooy nit ki dina yor instrument bi di def sax xëy na njombe te kenn du ko mën a teg loxo ndax kenn xamul fu mu nekk ndax ab ordinateur am rek la yor amul siège comme Rafa TV gis naa leen keroog sax mbedd bi ñu nekk ñu bëgg ko tuddee rue Rafa TV am ku xuloog ñoom ci internet bi ne leen non fii kër Soxna May moo nekk ci koñ bi su rue bi di tudd rue Soxna May lay tudd <laughs> waaye xam naa ne bu ngeen góorgóorloo mën na nañoo mën ngeen a am seen rue bu bopp <laughs> yàlla wala ngeen lëkkaloo <laughs> yàlla baax na donc di wax vide juridique bi da ciy am ndax da ngay gis koo xamante ni day yor téléphone portable am wala mu yor ordinateur am ñu koy régler law ay compte saa bu xëyee ba ngoon jot di ko dalloo ci kaw ay nit di ko dalloo ci kaw ay gor ndax deux cent mille francs bañ koy jox wala cent mille francs bañ koy jox moom loolu la nekkee waaw loolu nag su amee yoon dafay taxaw moo yoon boo xamante ni nit ñi ñoo koy def mais su boobaa aussi éducation dafay taxaw ngir nit ki mën a am li ñuy wax conscience am mën jamono bu nekk mu xam ne kat moom instrument bii ko jox mën na cee amee ngërëmal yàlla waaye mën na ko cee ñàkke su boobaay it moo tax éducation bi di am solo ndax dinañ ko xamal bu baabaa balaa instrument bi di ñëw ci loxoom dinañ ko xamal ne ko loo am ci kaw suuf lu dul ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla ko gën loo ñàkkit te am ngërëmal yàlla ñàkkoo dara mu xam valeur u am ngërëmal yàlla ba pare xam jëriñ gi mu koy jëriñ ba pare nangul tamit dogal bi nga xamante ni yàlla dogal na ko ci moom mooy dundam dafa gàtt loolu te bés dina ñëw instrument boobu dañ ci loxoom la mu ca doon amee it dañ ci loxoom mu daal di dem wéet ak sunu borom ak ay jëfam léegi la mu doon ci jëf rek loolu lañ koy àtte su boobaa donc loolu ça va c'est beaucoup plus profond fi may jeexale rapidement sëñ Abdou Khadre mooy ci Touba nag ñi nga xamante nii nag ñooy exercer métier journalisme métier média de façon globale que ça soit les médias classiques que ça soit les médias les médias sociaux ci biir Touba ñoom nag dañoo am responsabilité bu gën a mag ndax waxtaan na neex borom kër <laughs> Touba dañoo ñëw ak loo fi mën di indi ak métier boo fi man di exercer da ngaa ñëw fekk borom dëkk bi am projet de société ba pare am ay code culturel am ba pare am ay valeur yu mu bëgg ba pare yemu ci sax daal di defaroon constitution daal di ko fiy bàyyi xam nga tey jii France boo ñëwee ak loo sawar sawar sawar da nga fay fekk la constitution de la cinquième république ñu ne la ah sawar nga lool de waaye loo sawar sawar mënoo koo yokk loo tayel tayel doo ko wàññi dëkk bi it dafa am lu fi borom dëkk bi bëgg donc média bu fi ñëw dafay in du média ça va même au-delà des médias quel que soit le métier que soo xasee dugg Touba da bàyyi xel ne fii kat dëkk bii ma ñëw dafa am ay code culturel dafa am valeur yoo xamante ni moom la ñu bëgg jamono bu nekk di ko yëkkati muy gën di jolli jamono bu nekk di gën a màgg jamono bu nekk di gën a am solo jamono bu nekk te loolu li ci jiitu mooy nga xam ne dëkkub diine nga ñëw waaye dëkkub xam-xam nga ñëw diine vraiment au sens large du terme diine it au sens euh, euh, au sens large du terme mbaax au sens large du terme te Serigne Touba li mu bëggoon ci képp koo xamante ni fekk nga ko ci dëkk bi te mu jiital ko ci njabootam mooy un capital humain de qualité te loolu la fi bàyyi loolu la fi nekkoon ñi mu doon yar loolu la leen doon yare waaye bi mu demee ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñoo ko wuutu ñoom it loolu la ñu wane te loolu nag média mënu ko yàq média waru ko yàq média dafa war bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy yëkkati jamono bu nekk di ko wane jamono bu nekk te loolu moo tax Rafah TV am solo lool. loolu moo tax Rafah TV am tolo am solo dans son inspiration waaye loolu moo tax Rafah TV am solo ci ki nga xamante ni moom lañu ko tuddee mu leen mu leen di gunge ci liggéey bi muy Cheikh Ahmadou Rafahi ibn Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké taxawaayam tey muy ci biir réew mi. muy ci bitim réew yoonu murit amal ko njukkal bu baax a baax te loolu mooy avantage u média ndax tey jii bari na ku ko xam te ci média la ko xamee bari na ku jàng ci moom njàngaleem Serigne Touba ci média nga ko xamee média de masse donc muy impacté à travers le médias donc loolu moo tax responsabilité bi day gën a mag responsabilité bi ci ki nga xamante ni moom mooy rejoindre Rafah TV man tey nga xam su ma ñëwoon tey jii di rejoindre Rafah TV war nañu maa auditionné ba xool ndax man méngoo naa ak war may dëkk bi waaye war naa am beneen dimension formation ci biir média bi bi nga xamante ni dina contrôler man contenu bi nga xamante ni moom laay indi parce que li tax média africain yi am jafe-jafe mooy dañoo am défi contenu Afrique dañoo am défi contenu quand mais mets pas du contenu mais keneen mooy ñëw defal la contenu et aujourd'hui c'est ça qui nous arrive en Afrique au Sénégal et peut-être que ça qui peut arriver à Touba si on n'encadre pas les médias fii ci dëkk bi donc loolu mooy défi bu njëkk bi mooy la législation mooy tey képp ku yor média di ko exercer ci dëkk bi war nañoo xam fan nga nekk siège bi war nañoo xam kan moo ko yor war ñu tam jamono bu nekk sax ñuy def taxaw seetlu ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi am média parce que wax naa leen ko xam nañu ko ñoom ci seen bopp responsabilité bi ñu am mooy waxtaan na neex boroom kër te fii jaay fi professionnalisme parce que damay wax ne médias yi bu ñu ñëwee comme ñu fii bu ñu la ko indee waroo koo def comme ni ñu def cette démocratie la te dañ la naan média dafa bokk ci démocratie mais ban démocratie est-ce que c'est une démocratie à wala ndax c'est une démocratie qui doit nous ressembler et nous rassembler est-ce que suñu démocratie tey jii boo jëlee la démocratie à l'occidentale te démb laa ciy déglu benn boroom xam-xamu tubaab mu ne la démocratie na fekk nu nous diviser te démocratie loolu rek lay indi day diviser dama koy joxe benn exemple tey jii bu ñu bokkoon benn kuréel man ak sëñ Abdou Khadir mi suñu amul capacité d'accord ci kan moo ñuy jiite kuréel googu suñu voté rek boo moytul kuréel gi xaaj na ñaar te ñii nga xamante ni ñoom la ñu gagné dañuy ñaanal ki gagné yàlla na bu mu réussir difficulté boobu tamit dañu ko nekk donc loolu moo tax il nous faut penser la démocratie il nous faut la repenser et il nous faut l'acclimater ñu dëppale ko ak li nga xamante ni moom mooy les us et coutumes noonu mu aajowoo ci démocratie noonu la aajowoo ci li nga xam démocratie daf ko indi te médias yii nag ñu amee démocratie moo ko indi il nous faut donc des médias qui nous rassemblent et nous ressemblent et qui puissent accompagner suñu développement économique et sociale nan la ñuy amee médias yoo xamante ni dinañ ñu nuru ba pare di ñu boole ci li nga xamante ni moom mooy essentiel ba pare di gunge suñu dox jëm ci ñu am dund gu mucc ayib ñu am dund goo xamante ni dund gu baax lay nekk waaye jamono bu nekk ñu koy gën a baaxal ci ni nga xamante ni noon la ko sëriñ bi bëggee woon ci ñun ba nga xamante ni yuuxu ga sëñ Moussa Ka yuuxu woon ñun kat du ko yuuxu tey duñu ko yuuxu ëllëg mooy boo ñu joxee lan ñu joxoon dootuñu def nañu defoon xanaa yëgoon a yaru nañu boo ñu joxee lan ñu joxoon dootuñu def nañu defoon xanaa yëgoon a yaru nañu donc jamono bu nekk instrument bi ngay am ci sa loxo soo ko jëfandikoowul noo ko noo ko warul jëfandikoo yàlla de bu ëllëgee mën na laa yar waaye bu la mu la yar àdduna dina la yar àdduna dina la yar donc maa ngi leen di gërëm bu baax jamono bi moo xat lool ak euh, kilifa yi fi teew ñu leen di jéggalu bu baax ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko jafe-jafe bi ma gën a am surtout mooy ñii ñu ma booleel taabal ji te ñii fu ñuy toog di wax man damaa war di yor bit di bind di jël note muy Cheikh Abdou Khadre ak sëñ Mame Mor donc di leen gërëm bu baax di leen sant di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala bés bi ñu jëm fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar yàlla dimbali ñu ñu fekke ko mu dimbali ñu ñu def ko ni ko borom dëkk bi bëggee ñu màng ci ngërëm màng ci ay leer yu màgg